أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين بقيتي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suuratu yusuf bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñoo ngi jël aaya fu ñëwoon bi passé dégguma ko de soixante soixante seize lañ yemoon kon tey ñoo ngi jël soixante soixante-dix-sept tey ñu ngi jël soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf mu nekk ñetti aaya yoo xam ne sunu boroom subhaanahu wa taala mu ngi ci jàngal ñeenti mbir ba ca jiitu mooy masruiyatul itizaari anil xata'i képp ku juum yoonal na ci yow yoonal nañ ci yow nga jéggulu kon luñ ciy dégg mooy njuumte day am te amul ku dul juum nag jàlla man laa yaxta ku mu mën a doon mën ngaa juum waaye njuumte ku ko def kenn du la bindal bakkaar ku juum kenn du ko bindal bakkaar ku nelaw kenn du ko bindal bakkaar ak ku ñu forcé kenn du la bindal bakkaar njuumte ñëpp a koy def kullu ibni aadama xatta ñëpp ay juum amul ku dul juum kenn dong moo dul juum mooy sunu borom subhanahu wa taala maadaama doomu aadama mbindeef la fokk muy juum góor day juum mag day juum xale day juum jigéen day juum njuumte ci biir société bi lañ ko fekk amul ku ko dul def ci ñun kilifa day juum léeg-léeg nga nekk ci biir kër nga nekk wëy jur nga juum sa doom ne la da ngaa juum boo rëyul da ngaa war a xam ne da ngaa juum da ngaa war a rectifier parce que loolu moom mooy defar kër gi waroo rëy kon njuumte day am waaye yoonal nañ ci ki juum mu jégglu al i'tizar ñu nangul ko ngànt ñun tamit ñu xam ne dafa juum gis nga bokk na ci li tardeel sunu daawa tey léeg-léeg nga gis ku juum gars yi attaqué ko attaqué bu metti fa lay jaar sax nag téppéerlu ne maa tey féttéerlu léeg-léeg aussi ci say njaboot am ku juum nga attaqué ko attaqué bu metti mu ne maa tey mu féttéerlu su ko defee yaa ngi moom ngeen am problème te pourtant mënoon nga ko régler ci régler bu bu bu simple bàyyi ba yéen ñaar ngeen wéet nga woo ko fu kenn nekkul xamal ko tey juum nga juum bu metti loolu bu mu la dalaat xanaa loolu dafa am lu muy def waaye attaqué ci biir nit ku ko bàyyiwul def rek da ngay féttirloo même bu dee xale la da nga koy féttirloo bu dee jigéen sax même bu dee sa soxna da nga koy féttirloo su boobaa nag problème dafay am kon yoonal nañ ci sharia ki nga xam ne dafa juum mu jéggulu su jégguloo aussi nit ñi war nañoo xam ne dañ ko war a nangul ngànt Zeynil Abidin doon na jàpp jaam bi di ko sottil këll gi këll gi daal di jóge ci kaw daal di dal ci bopp bi ndeysaan daal di toj bopp bi bi mu nee nii mu làmb mu xool mu gis deret mu siggi xool jaam bi mu ne ko wal nu mu tuddati wal kaazimiina al ghayz wal kaazimiina al ghayz yàlla bëgg na ñi wan na mer mu ne kazamtu ghayz yi wane naa sama mer mu ne ko wal aafiina ani naas yàlla bëgg na ñi baalaate mu ne ko afawtu anki mu ne ko inna allaha yuhibbul muhsinin mu ne ko libéré naa la xanaa xoolal kooku ak deret a ngi sotteeku mais terewul contrôlé wu na boppam ba ndaw si tamit xam na fu muy jaar ba kilifa gi du tension du jóg maanaam société bi bu ñu dundee l'islam rek mbir yi lu mu metti metti metti metti dinañ ci mën a génn parce que yàlla indil nañ solution waaye bu ñu tegee fay l'islam topp suñuy aada ak suñuy xar baaxi maam topp ay loi rek musiba daf nuy dal ñaareel mooy qad yaqturul xil xil xalim an yaqula ma lam yakun yaquluhu lawla wujjiha bihi min assu léeg-léeg boroom xam-xam walla kilifa walla ku xereñ léeg-léeg mer walla dara dina ko jàpp ba mu wax lu mu warta wax waaw léeg-léeg nga war waa wax loo xam ne waroo ko wax donte ne yaay kilifa kër gi nga wax loo xam ne waroo ko wax nga génn ci sa gémmiñ loo xam ne même bi nga wéetee xam nga ne tey de def naa crime tey sama gémmiñ gi génne naa ci loo xam ne jaaduwut loolu day am ci dund doomu aadama waaye su boobaa doomu aadama boobu jarul muy rëy jarul muy gis boppam saa yoo yégee ne wax nga loo warta wax loo xam ne jaaduwut fexeel nga rectifier ko fexeel nga deltu ci ginnaaw parce que yow doo doo malaayika doo jinne doo dara mbindeef nga te yàlla rek a mat loolu gaay naan alkamalu lillah ñeen ñetteel mooy masruiyatul istirhaami wal istitaafi liman ihtaj ila zalik rajaan an yurham wa yutaf alayhi yoonal nañ yërëmtalu ak lewet lewet lu pour ñu baal la nit bu juumee mu ñëw di wàcce boppam di wane ne dafa bëgg koo jéggal dañ ko war a jéggal nit loolu dañ ko yoonal masruiyatul istirham maanaam yërëmtalu ku ñëw ci yow di yërëmtalu yenn saa yi sax sa doom ñëw ci yow di yërëmtalu pour nga may ko dara papa waaw dooma kii waaw waaw di la jéem a neexal quoi su boobaa yow mi nga xam ne kilifa nga war nga xam ne kii comme day yërëmtalu nga yërëm ko wala dafa dafa bëgg ku ko ku ko jéggal wala ku lewet ci moom yow tamit nga def loolu yàlla nee na xanaa bëggu leen yàlla baal leen kon dee leen baalaate ku bëgg yàlla di la baal da ngay baalee kon dana jaadu su fekkee waa ji mi ngi yërëmtalu ñu yërëm ko su fekkee mi ngi bëgg ku lewet ci moom ñu lewet ci moom bu fekkee mbir mi laaj la ko ñeenteel mooy xurmatu tarkil jaani wa axdi gayrihi araam na ci sharia kenn tooñ la nga fayu ci keneen ki maanaam mag tooñ la nga fayu ci rak jabar tooñ la nga fayu ci jëkkëram wala jëkkër tooñ la nga fayu ci jabar wala mbokk tooñ la nga fayu ci mbokkam loolu dafa araam ki nga xam ne moo def dégâts ci moom rek moom la loi bi di jàpp wala moom la ñuy fayu wala moom ki sàcc moom la bu dee day rey nit moom la du jaadu comme police ni muy def tey benn waaye def crime ci kër gi ñu ñëw di xool gisuñu ko ñu jàpp papaam ak yaayam yóbbu dugal ci kaso bi ne ko boo ñëwul duñ bàyyi sa ndey ak sa baay loolu tooñ la loolu tooñ la loolu si Afrique rek nga koy gis doo ko gis mukk ci tëkk tubaab bi tooñ weesuwut nit def dara daw nga dem jël ndeyam ak baayam ne leen ràpp ci kas ñoom yéguñ ti ñi xoolal xoolal tooñ gu grave boobu te loolu day am léeg-léeg sax ñu dugal ci benn paa boo xam ne wala maire boo xamante ne bu génnee fa lay jaar pare day feebar ba ba muy dee ndax xamuñu loolu ñoom léegi muy lor nañ leen wala seen tension monté ñu dee am na ñoo xam ne man gis naa maire boo xam ne màkk dafa réer kese màkk mu réer ñu dugal ko ci auto police ti ti ti di wër fu mu dëkk meer bi bëgg a dee ci oto bi dee laa la wax dee ci biir oto bi ñun ñoo ñëw ne leen génne leen ko day dee de bu ngeen ko génnewul day dee ñi xamuñu loolu ñu ne kaay ne non ñun dañu ñu ne ko ñu ne leen non non génne leen ko sinon day dee ci oto bi te xoolal dañ ko cee dugal rek pour wuri fu mu nekk oto bi naan siree rii rii rii meer bi de tey mu dem yowmal xiyaamati xoolal loolu parce que xamuñu ko ñoom xamuñu loolu ñoom seen seeni seeni yaram ñemewu ko voilà mu ngoog kon doomu aadama léeg-léeg ñu tooñ ko tooñ bu metti fekk moom mbokkam moo tooñ dinañ jàng ci aaya yi di ñëw kenn ku nekk li nga def yow loolu dong yow la yow yow yow la engagé kon aaya yaa ngi noonu mu nekk ñetti aaya moom la ñuy jël ma bàyyi cheikh bi incha allah mu jàngal ñu ko fal yatafaddal mashkuran maajura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا معك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلا من وجدنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون barakallahu fiik jazakumullahu xayran nu yàlla fayal ñu la yow sunu borom nee na gaa yi bañ leen fekkee ci àll ba encercler leen wër leen mooy Yuusuf ak gàngooram soldaar yi lan lañ leen déclar déclaré mooy yéen ay sàcc ngeen innakum la saariquun yéen ay sàcc ngeen muy baat bu diis nag ab gor ab jullit ay doomi yonent nekk mbooloo ñu fekk leen ci àll ne leen yéen ay sàcc ngeen imagineel yow tey rek ku la fekkoon sa kër fëgg nga ubbi sa buntu ñu ne yow sàcc nga te sàccoo wala nga nekk ci mbedd di dox nit ñëw poñale ne la yow sàcc nga tuumaal la xoola loolu nu mu méttee ñu ne leen yéen ay sàcc ngeen ba ñu discussion bi yàggee ci lan tax ngeen ne ay sàcc lañ ba gars yi proposé leen ne leen ñun ku ñu fekk lan lañ sàcc ñu ne nattukaay bi bi ñuy nattee waaye waxoon naa leen dars passé plan la bu Youssouf tëraloon pour mën a récupérer rakkam ndeysaan ba ñu tàmbalee di visiter saag yi di xool ñu njëkkee yu mag yi di wër di wër di wër di wër ba yegg ci bosu Binyamin ñu tekki rek fekk ko ci ñu ne voilà waxoon nañ leen ay sàcc ngeen mi ngi nii ci seen rakk ji lañ ko fekk au lieu ñoom ñu défendre xale bi xam ne sàccul parce que moom fekkewul fañ doon nattee ñoom fekkewuñ ko ñoom waroon nañu mën a wax ne ñun ah, ñun sàcc ñu parce que ñun nattaluñ suñu bopp takk ñu buus yi beneen bi mooy ñi ci delloo woon xaalis bi première fois ñoo ñoo ci defaat lii ñoo amoon nañu ay preuve yu leer pour ñu génn ci mais yenn saa yi doomu aadama bu gëlëmee wala mu tiit wala am lu ko bett da koy assommé ba dootul sax mën a défendre boppam dafay tiit ci saase rek xaalu ñoom gaa yi frère am yi ñu ne in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl moom mi bu dee dafa sàcc tey fii frère am sàccoon na démb xoolal gis nga ñu ngay tuumaal waa kër googu parce que ñoom lan lañ bokk luñ bokk ñu bokk bàyyi ñoo bokk pap xaalu ñu ne in yasriq bu fekkee kii dafa sàcc waaye teg nañ ci sart nag in xarfu sart la su fekkee moom day dafa sàcc jël na nattukaay bi ci secret nëbbu ko faqat saraqa sàccoon na axun lahu frère am min qablu démb balaa tey di ñëw magam sàccoon na allahu akbar muy tuuma bu rëy te loolu ñu naan Yuusuf dafa sàcc boroom xam-xam yi nee nañ mën na am néegu tàntaam la fekkoon benn xërëm mu sàcc ko bañ ñu jaamu ko mu dem tojji ko benn kàddoo ngo ñeneen ñi ne non dafa jëloon tàndarma fekk tànta ji teg tàndarma mu daal di koy jël fekk am na miskin bu yelwaan mu sarax ko ñu ñëw seet gisuñu ko ñu ne Yusuf moo ko sàcc fekk daf ko saraxe ñeneen ñi ne benn ceinture la buñ daan takk ñoom yonent yi mu nekkoon ci tànta ji ki nga xam ne moo ko yar bi yaayam faatoo benn jour génne ko di ko won ne ko ceinture bi de Ibrahima takkoon na ko Isxaaqa takkoon na ko sa papa Yaaqub takkoon na ko moom tamit mu bàyyi ba tànta ji de mu daal di koy jël takk daal di sol mbubu ci kawam ñu koy seet fekk mu ngi ci ndiggam moo ko takk biñ ko gisee ñu ne ko kii sàcc la yooyu mooy sàcc bi ñu koy tuumaal loolu mooy sàcc bi su fekkee ne moom day dafa sàcc frère am sàccoon na min qablu démb ndeysaan te ki ñuy waxkat sàcc la mi ngi nii taxaw di leen xool mooy président de la république dëkk bi ci ku demoon ba pale ne Macky Sall sàcc nga doo ñibbee say tànk wala wala ku demoon ba bureau gouverneur ne gouverneur yow sàcc nga wala nga wax ko commissaire mu woo la bureau bi nga ne ko yow mi sax sàcc nga lan ngeen di xalaat xoolal buur bu toll ne Yusuf ak maxaama ak gànd ak garde yi ñu ne ko sàcc nga mu ne patt ndeysaan fa asarraha yusufu fi nafsihi mu daal di koy nëbb ndeysaan affaire bi métti ko mais mu bloqué ko bañ ko génni parce que lu tax am doole jarul ngay yàkkamti am na ñoo xamante ne tey jii bu la ko wax sàcc rek pes la lay def tër nga bërëngu daanu ji fële man nga naan sàcc di la jëm a jaay pouvoir am ak dooleem waaye xoolal Youssouf munoon na wax pourtant ki ko wax sama garde yi jàpp leen kii mënuta leen ko acca anawaa ne déedéet xoolal moo tax boo amee doole bul ko jaay nit ñi bul wan nit ñi ne yaa am doole yaay buur bi wala yaay nangam ak nguur wala ak doole yàlla da koy abale rek ay waxtu la rek ay jamono am am yàlla da ko dénkaane mayewu ko ay fan ay jamono ay diir ay waxtu kon loo am am doole àndal ak sa xel àndal ak sa sago xool leen fii Yuusuf ni mu toll ba pare ci digg àll ba la leen fekk mu ngi ànd ak garde yi ñu ngi armé wu waxuma ñu tuumaal rakkam sàcc mais ñu ne magam sax sàcc la te mag jooj ñu naan sàcc mooy buuru dëkk bi tey bu doon kenn ci ñun la fii tey nooy def bu doon benn buur la tey ci buur yi bu doon benn kilifa tey ci kilifa àddina yii wala benn xalifa diine lañ ko wax lan ngeen yaakaar waa jooju wax loolu taalibe yi lan lañ koy def benn kilifa diine bu mag doon na def waxtaan ci jàkk muy dajji xabdu xabdu mu koy dajji mu naan julli def nii amul fenn ci islaam waxuñu ko fenn wérut ku ci gis hadis waxal rek benn waay ci sàppe yu mujjee daan jóg taxaw daan ne ko sëriñ bi xaala rasul rek gars yi ne door leen ko waa ji ci fenêtre bi lañ ko jaarale sinon gars yi rey ko sëriñ bi ngay diingat may ñu sax waa ji dafa ne xaala rasul rek benn waay ne waay waay door leen ki waay gars yi yëkkati ko jaarale ko ci fenêtre bi laa ñu koy rey pourtant mënoon nañ bàyyi mu wax mais xam nga bu waxee fu muy mujj loolu dal na oustaz Ibrahima Kan bu Malika Makka oustaz Ibrahima Kan bu Malika loolu da kaa dal Makka dañuy dem Makka wala dajale wala boole tisbaar ak takkusaan timis ak gee Arafat dañuy boole tisbaar ak takkusaan ci ci benn nodd ñaari li xam ab benn kilifa gu mag xalifa diine bu mag bu aj si woon bi ñu noddee li xam julli tisbaar ñu jógaat sëriñ bi bëgg a kàbbar mu ne ko dañu war a li xam rek taalibe yi attaqué ko kër kër kër waay yow ki ki ay julli waay mu ne ah bu yëba ngeen julli waaye man sunna laa wax li yonent bi wax laa wax lu leen neex nag def leen sëriñ bi ne waaw salaamaaleykum nañ leen julli ñu julli ba pare bon discussion bi daal di jeex ñu dem Mina sëriñ bi woolu ko ne ko keroog day coow li bëri woon na waaye yaa nekk ci dëgg parce que gëstu naa ko mu ngi nii xadis baa ngi nii yow nag bu ñu demee Sénégal bëgg naa nekk sa xarit ñu ñëw avant muy gis sëriñ bi sëriñ bi faatu parce que sëriñ boobu ku baax la dëgg moo ko ñor. ñun nag suñu problème tey mooy wala ñu gëstu dëgg bi déedéet dóor leen ko rek lu tax muy wax même bu dee sax seen seen sa biir kër même bu dee suñu papa yi léeg-léeg xale bi nekk ci dëgg Sénégal mooy dëkk boo xam ne xam-xam yitteelu leen ñoom kilifteef moo leen yitteel te pourtant wax dëgg yàlla xam-xam moo ñu war a yitteel mbir mi ndax dëgg la wala du dëgg hadis la wala du hadis aaya la wala du aaya wala borom xam-xam yi lañ ci wax loolu moo ñu war a yitteel. mais fii pouvoir rek day def nangam day def nangam day def nangam dóor leen ko wala nangam ak nangam te loolu wax dëgg yàlla ab jullit war na kaa moytandiku jullit ñi war nañoo sori loolu daal fa asarraha nëbbu na ko axfa haadihi tuhma fi nafsihi loolu ñu ne ko sàcc nga nëbbu na ko ndeysaan foofu mu taxaw mu ngi ko bloqué pourtant mënoon na leen wax man la ngeen naan ma man sàcc la lan laa sàccoon créer leen problème déedéet waaye da koo nëbb walam yubdiha lahum leeralu leen dara feeñalu leen dara dafa noppi xam na ne moom sàccut te aussi dafa am fu mu jëm imaginel tey su yàkkamti woon ne leen yéen ngeen ne sàcc la wala naa nga xanaa xamu leen man maa Yuusuf kën kon li mu bëgg du am mais dafa am fu mu jëm yàlla traceel na ko yoon bi looloo tax ndeysaan yàkkamtiwul mu ne doomu aadama warul yàkkamti ndax al ajala mina min asheytan ataanni min allah ndànk dafa bokk ci yàlla yàkkamti ci seytaane la bokk looloo tax leeralu leen feeñalu leen mbir mi li muy metti metti metti moom kilifa gi nëbbu na ko ne pat waxul dara daf ko nëbb rek bloqué ko ndeysaan daan ne pat feeñalu leen dara waxu leen maay Yuusuf waxu leen yéen yéeni nangam ndeysaan qaala antum charru makaanan yéen yéen a gën a bon li ngeen di wax ñii yéen di gis naa leen chaque instant bu ma leen laajee yéen ak ñi ngeen bokkal bàyyi rek li ngeen di seede ci ñoom lu bon la ayu manzila mimman ramaytumuhu bi saraqa yéen ñi ngeen di tuumaal sàcc ñoom ban martaba lañ am ban kër la leen yàlla wàccee yéen moment bu nekk di ngeen di tuumaal kii di tuumaal magam enquête naa leen fii ngeen ne magam bandi la woon sàcc la woon nangam nangam fekk xot xoolal loolu yëpp moom la loolu yëpp moom la ndeysaan gars yi biñ ko jëlee ci seen papa balaa ñu koy sànni ci teen dañ koo dóor ba mu bëgg a dee ñu bu ko rey am na ci kenn koo xam ne moo ko sauvé bañ ñu rey ko mu ne leen bu leen ko rey sànni leen ko ci teen ñu daal di koy jàpp tëmbal ko ci teen ba pare dem toog fële nag di xaar mu dee benn caravane ñëw fekk ko fa dugal buum génne ko mu langaamu ci génn ñu daw ñëw ne ko sunu jaam la dafa rëccoon soo ko bëggee ñu jaay la ko xoolal loolu yëpp feeñ na tey mu ngi taxaw seen kanam te tey am na pouvoiru fayu waaye mu ne leen baal naa leen keroog ba mbir yi di feeñ da leen ne baal naa leen loo am doole am doole bul fayu del jéggale del baalaate mais sunu nitu tey yii sunu nguuru tey yii sunu kilifa tey yii sunu sunu sunu sunu sunu sunu doole rek jaay maanaa jaay daraja man lay kii man lay wax dinaa la dóor te sama loxo du la laal yow di nga xam ne man ngay amal affaire yow yow yow yow loolu la ñuy wane xoolal Yusuf depuis début ba fii ñu toll tey nga xam ne tey yor na pouvoir lépp mu ngi ne pat waxu leen man la pourtant premier jour rek munoon na leen wax dóor leen ñi ñëpp ci kaso bi premier jour bi ñu feeñee gars yi suñu ko ne lan la mu ne lan xamu leen lan la ndeysaan comme ba ñuy feeñ dañ leen maza faaltum bi Yusuf yéen ndax xam ngeen li ngeen doon def ci Yusuf ñu ne ko la ante Yusuf mu ne naam ana Yusuf ndeysaan allahu akbar texte yaa ngi ñëw ci kanam mu ne leen yéen yéen a gën a bon li ngeen di wax ñii chaque jour ngeen leen di tuumaal lu bon musuma leen laaj ba ngeen wax ci ñi lu baax waaye wallahu aalamu bi ma tasifun ndeysaan gis nga gis nga fa mu yóbbu mbir mi wallahu yàlla aalamu moo gën a xam bi ma tasifun li ngeen di wax sifa melokaan yi ngeen di tuumaal waa kër Yuusuf ak ay frère am wala frère am li ngeen di wax nii ne sàcc la ñoog nangam la ñoog yàlla moo leen ko gën a xam ndax nit ki moom loo xam xam xam xam yàlla moo la gën a xam sa bopp wala lu ñu xam yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp ñoom lu ñu xam-xam yàlla moo leen gën a xam Yuusuf ak Binyamin moo tax ndeysaan gis nga fa mu teerale ji wax ji mooy lan wallahu aalamu bi ma tasifuun li ngeen di wax nag dëgg la wala du dëgg mais yàlla xam na ko ay sàcc lañ wala duñ sàcc dañoo bon wala bonuñu loolu moom dañ koy bàyyi ak yàlla looloo tax sooy seede da ngay seede li nga xam wa ma shahidna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi raibin nu mu tuddati hafizin nit booy seede ci nit sax da nga naan lii day la ñu gis ñun nga bàyyi leneen li ak yàlla loolu tax gis nga ku faatu ku dee suñ koy jullee imaam bi amul droit wax allahumma innahu kaana muhsinun yàlla kii doona def lu baax amul droit ñi ma wax lu muy wax allahumma in kaana muhsinan yàlla bu dee kii da doon def lu baax ndax yow wóoru la moo tax da nga koy accuser fa zidu fi ihsaanihi kenn amul droit am fit nit dee nga ni koy àjjana la jëm da nga am yaakaar lu mu baax baax baax baax dañuy yaakaar ci moom àjjana lu mu yées yées yées yées kenn du yaakaar ci moom safara ndax yàlla moo yor xol yi yàlla moo yor yërmande mooy yërmaate am nañ droit nag rafet njort ci moom bu ñuy seede aussi li ñu xam ci kaw la ñuy seede lu ñu gis la ñuy seede waaw mais yenn saa yi da ngay gis ku dee benn waa ñu ne kii mi ngi àjjana waaw billaahi wallaahi taala nga gis ku ko assuré ak kii àjjana la jëm man fekke naa benn dëj boo xam ne waxuma ku dee ki dem na àjjana mais dañu ne woon dañu ne ñoom kër gi ñu jokk kër googu ñëpp am nañ ay àjjana ba pare parce que jox nañ leen seen caabi ñu ngi ko téye moo tax waa ji ne ñun tiituñu ndax kii kër gi mu bokk ñun ñii ñëpp ñu ngi yor suñu caabi kon xam ngeen ne moom waxi noppi moom directement léegi dem na day dugg rek ubbi dugg waaw Sénégal moom lu nekk fi nga koy dégg fi nga koy gis ay caabi àjjana yoo xam ne fii lañ koy joxe lu nekk waaw dénk jël nit jox nit jox nit jox nit ba mu dugg àjjana loolu fi nga koy gis walla ku dem àjjana ñëwaat. wala ku jóge fii dem àjjana dem safara génne fa ay nit yóbbu leen àjjana ba pare ñëwaat Sénégal toog wala gis leen loolu déggu leen ko man de gis naa dégg naa ko waa ji ne man démb dem naa safara nangam yi nit sax laa waroon sauvé mais dama koo yokk bi ma demee ndax génne naa fa ñu bëree bëree bëri dugaleen àjjana ñëwaat toog yéen et puis yow Sénégal gi ga benn waaye nit ñi jóge fi rek dem France nangootuñu ñëw nationalité ñenn ñi dem Italie nationalité ñi dem États-Unis nationalité nangootuñu ñëw bu ñu leen waxee kaay leen ñibbi sax dañuy bañ waxuma laa nga dem àjjana naan da ngay ñëwaat fii. ndeysaan am na benn waaye bu dëkk fii keroog bi ñu koy rëfule di ko jëlee Amérique di ko indi Sénégal benn waaye ne ko diw yaa ngi dem dëkk bu métti dëkk boo xam ne kilo ceeb kilo suukar paquet warga litre diwlin ah dëkk bi nga xam ne boo bëggee sangu sax doo am doo sangu ñaata fan lañ toog amuñu ndox ah fii lu fi nit di def da ngay jàng ba pare doo liggéey fii lu fi nit di def ngeen defee ne nit da jóge àjjana di ñëw fii est-ce que xel nangu na loolu ah mbokk yi dañ leen wax dëgg rek yéen ñi toog fii kenn wallahi buñ la mayoon visa nga dem Am- Amérique ñu ne la ñibbisil te dara xew da nga naan ñibbiwuma am na ñoo xam ne yàlla lu may def foofu yàlla tere gars yi nee nañ kaso kaso Europe yi sax ñoo gën a neex fii kaso Europe yi ñoo gën a neex dëgg dund bi fii loolu la ñuy wax man de dégg naa ay ay ay ay ay européen di ko wax ay sénégalais yoo xam ne Europe lañu nekk naan kaso Espagne yi moo gën a neex Dakar ndax fii lal yi dafa neex dañ lay tegal télé ngay lekk ñu lay jox argent de poste yaa ngi ci kaso waaye fële ci ay néegu ñax ngay nekk ci naaj bu tàng bi ngay dox amul climatiseur boo bëggee glace da ngay taal oto dem dëkk ak dëkk mbuusu glace 500 francs ah man dem naa village boo xamante ne du jël nañ 4x4 di wër glace mënuñu ko am 4x4 lañ jël di wër glace mënuñu ko am benn mbuusu glace mënuñu ko am fuñ fuñ dëkk buñ dem ñu ne ñu jeex na te 500 lay jar xoolal loolu ba pare nga bëggoon ne dem nañ àjjana ñëwaat nga gis fi ay nit di ko wax waaw diw bi mu faatoo man maa ko doon teeru canapé bi mu toog man maa ko teg teeru ko ci biir aljana mu ne ko yow mii mu ne ko man nii journaliste bi ne ko yow mii mu ne ko waay man nii vidéo boobu yaakaar naa gis ngeen ko suñ koy wax day mel ne àjjana fii la da ngay tourner tali bi rek gis àjjana ñëwaat c'est te te te ak a métti waxuma laak nag ku jógee àjjana ku jógee fii dem safara génne ay nit dugaleen àjjana ñëwaat toog moom moom gis ngeen ko encore ati ne la yàlla jubal mu ne leen qaalu ndeysaan waa léegi nag waa famille bi ñooy wax mbokk yusuf yi qaalu ya ayyuhal aziz ndeysaan yow buur yow président yow kilifa gi waay waay ñoo ngi lay yëgal ne inna lahu aban shaykhan kabir ndeysaan lan lañ bëgg ci li li mooy li ma doon wax sànq dañuy dañuy yërëmtalu pour buur bi yërëm leen yaa ayyuhal aziz e yow buur xale bii nga bëgg a jàpp de inna lahu aban shaykhan kabir yaqub bu leen fàtte ne ñoom balaa ñuy départ dafa am contrat bu ñu signante woon ak seen papa ndax dégâts bi ñu defoon ci Yuusuf moo tax bi ñu ne Binyamin na ñoom papa ji ne leen loolu bu leen ko sax xalaat Binyamin demut ñu topp papa ji topp papa ji ba mu signante ak ñoom contrat ne ñoom danañ ko indiwaat ak situation lu mu ñàng-ñàng danañ indiwaat xale bi moo tax ñu jëloon seen responsabilité ak lu mu métti métti Binyamin dina ñëwaat ndeysaan léegi nag comme am na ndogal bu rëy bu dal seen kaw nee nañ Binyaamin dafa sàcc te seet nañ bagage yi fekk nañ ko ci saakam te mënuñu résister parce que armée moo leen wër lu ñu am am doole wax naa leen doomu doomu Yaaqub yi dañoo amoon ñaan boo xam ne bu ñu ko ñaanee bu ñu meree dañuy ngande ñu commencé ku ci nganda rek Youssouf day ñëw laal la nga père nga naan nga naan sa frère yéen yéen kan moom laal mu Youssouf naan la waaye da ngaa lay wax ne yow da nga yaa mun ñaan bi man mun naa ko di boo fi ngandee dama lay laal nga père ku ngand mu laal la nga père. bañ demee ba xam ne amuñu amuñu amuñu doole bu ñu résister ñu commencé nag ne yaa ayyuhal aziz yow buur ñu commencé di wàcc ndeysaan di yërëmtalu pour mu baal leen ñu daal di jël xale bi yóbbu waaye ndeke moom ay pexeem la tëral. ñu ne inna lahu aban am na baay joo xam ne shaykhan màgget la kabir boo xam ne dafa xubidaas dem na ba jeexal léegi nu ñuy def fa xuz ahadana makaana jëlal kenn ci ñun ci famille bi mu mu remplacer xale bi xale bi ñibbi léegi xale bi sàcc gi mu sàccoon léegi nag nag kenn ci ñun loolu mooy tooñ bi ma doon wax sànq nit ki li mu def rek waan laysa lil insaani illa ma saa kullu nafsin bi ma kasabat ku nekk li nga def rek yow la waaw loolu mooy maanduti mais ñëw ci kër ana diw ñu ne nekk fi est-ce que yëg ngeen ne dafa sàcc léegi nag dañuy yóbbu papaam wala yaayam wala frère am ba keroog ñu koy gis ah waaw ñooñu ndeysaan ñooñu lu ci seen yoon ñooñu lan lañ def lu ci seen yoon bañ leen di yóbbu waxuñu yëguñu tinuñu mais tey loolu moo fi am kenn day def dégâts autorités yi ñëw ci kër gi di ko seet fekk daw na wala nangam ñu ne ko ñu del ñu jël ndeyam ak baayam ne leen ràpp ci kaso bi loolu tooñ la loolu teguñu ko fen lu dul jaay nit ki doole ki def dé dégâts ki def délit moom la ñu war a wëri ba ba ñu gis ko waaye dem jàpp njabootam dem tëj ci kaso di ko wër su waa jooju déggee loolu mën naa ñëw su ko su fekkee bandi la mu bañ a ñëw ñooñu nekk foofu ñu leen di torturer fekk yëguñu tinuñu ah loolu musiba la fa xus ahadana makaana jëlal kenn ci ñun nga remplacer ko place am lu tax inna naraka min al muhsinin ndax yow kat gis nañ la vraiment ku baax nga ku rafetal nga boobu ba léegi yaa ngi gate yaa ngi toppatoo yaa ngi def ci ñun lu baax kon noonu nga defee ci ñun lu baax noonu ñuy sàkkoo ci yow tey xale bi nga bàyyi ko mu dem nga jàpp ci ñun mag ñi kenn ndeysaan inna naraka min al muhsinin gis nañ la yow da ngay rafetal allahu akbar xool leen ñoom liñ defoon démb ba waa ji yàlla may ko teraanga mu am doole am kattan am pouvoir ñoom ñu ñëw moom mu leen di defal lu rafet ah ndeysaan est-ce que xel nangu na frère Youssouf yi li ñu def Youssouf yëpp ba fii ñu toll tey Youssouf di leen defal lu baax ndax xel nangu na lool waaye idfa billati ya ahsan idfa billati ya ahsan loolu gis nga su su alquran di wax ne wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim loolu du lu ndaw ñu def la lu bon nga def lu baax si waaye loolu nit nit mokkal na alxuraan jàng téere xadis yi di fanaane naafila di woor bëccëg di def lu nekk waaye boo ko ne boo ko xuree mu xuri la boo ko xoolee mu ne la xulli pour nga pour mu def lu baax loolu loolu de loolu du ñëpp ko am de loolu cër la ñu def la lu bon nga def lu baax saa yoo yeggee foofu rek yëgal na yow yëgg nga ci martaba yu kawe yi ngay fayonteeg nit ñi lu bon liñ la def nga leen di defal lu baax la ilaha illallah loolu ni loolu loolu néew na de loolu néew na ci doomu aadama yi te pourtant loolu mooy diine nag loolu lañ jàng nii ci alxuraan loolu la Yusuf def xoolal liñ ko def yépp terewul ñoom ñi ko doon def lu bon ñoo taxaw tey naan ko inna la naraka minal muhsinin te pourtant moom xam na ne ñii la xam na ne kii moo ma doon dóor kii moo ma sànni ci teen bi kii moo ma jaay kii moo ne woon nañ ma rey kii moo ma xam na ñoom ñëpp ngi nii terewul mu leen di teral loose leen ci palais bi bàyyiwu leen ci àll bi ñuy fanaan di leen defal seeni mbuus ba mu fees di ci delloo lañ doon jënd moo tax ñoom tey ñu ko doon def lu bon ñoo taxaw naan ko inna la naraka min al muhsinin kon affaire yi du ay texte rek yu ñuy jàng waaye buñ ko jàngee ba pare dañ ko war a dund fexe di ko dund ak suñu njaboot fexe di ko dund ak suñu waa kër fexe di ko dund ak suñuy mbokk fexe di ko dund ak suñuy dëkkandoo su boobaa la mbir mi di baax démb dama am benn dama am gan sama benn doom bu jógee Gàmbi ma jëndoon benn ventilateur bu bees ponkal mi ma jàkkaarloo yàqu ko jazakumullah xeyran cheikh bi yal na yàlla fay te damaa yéex a xam ne dafa yàqu te te dafa tàng te kooku dafa indaale doom liir bu ndaw ma dem jëli taal tàkkul ma ne yee dama koy réparé ma dugg fu ma war ta dugg mais comme am na benn policier bu ma nekkal sama koñ day réparé gis naa ko may ne ko dem leen ngeen wool ma ko benn waaye ne maa kooku réparateur la ma ne ko policier la de mais waa koñ bi séq naa ak ñoom loo xam ne chef de quartier bi sax su ma ko wowoon léegi ne ko oustaz daf laa soxla day ñëw ma ne ko noonu la ñu war a dundee ak suñu waa koñ ma ne ko police la mais léegi nga gis ko fi dans dix minutes mu ñëw kër ci kër ci defarul mu ne ma baal ma yóbbu ko kër ga trente minutes mu indiwaat ko dafa fanaane tàkk bu bët set ba léegi nii mu ngi tàkk waa ji daa waa ji ma nekkaloon ne ma waaw mais yow kii en tant que policier nga ñëw woo ko ne ko réparé ma mu rep ma ne ko im chef de quartier bi su ma ko woowoon léegi sama kër day ñëw c'est parce que loolu moom mooy diine dañu war a dund ak nit ñi dund goo xam ne waruñu leen jaay maxaama wala jaay leen maanaa wala di leen séexlu ñun lii lañ ñoom lee lañ non parce que loolu suñu pertement la ñun xoolal démb sama ventilateur réglé nañ ko sama xale boobu ak sox ak doomam ji fanaan nañ ci ngelaw te yóbbuma ko ci réparateur te heure yii la heure yii ah loolu mooy wax ji kon dañu war a fexe li ñuy jàng ñu koy dund di ko wàcce ci ci terrain bi bañ a séexlu nit ñi sunu dëkkandoo yi sunu mbokk yi di dem ci xew yi waxuma ñu dem ci li araam de mën ngaa dem ci ngénte bu am musique waaye yow sa musique bi du la intéressé mën nga faa dem balaa musique bi commencé tudd nañ ba pare demal sa yoon waa ji yëg na ne ñëw nga wala ah mariage bi demal teel teel a ñibbi bu la fa mbon ngi fekk na waa ji xam ne ñëw nga parce que mbokkam nga sa mbokk la waroo wax ne man damay kii nii kon sama mbokk yëpp dama leen di bàyyi parce que ñoom nangam lañ déedéet bul takkal kenn ticket parce que soo dawee nit ñi te yow yaa war a woo nit ñi kon ëllëg ak si biir soo leen woowee ndax dinañ ñëw diñ ñëw foog ñu jël jikko yonent bi alayhi salaatu salaam parce que moom da daan sekk fekki nit ñi looloo tax daawam daal di réussir qaala maazallah ndeysaan yusuf ne leen maazallah ñoo ngi làqatu ci yàlla ñoo ngi muslu yàlla an naaxuza illa man wajadna mataana indahu ñun kat yal nañu yàlla musal keneen tooñ ñu ñu jël tooñaange gi wàcce ko ci keneen ñun kat amuñu droit jël lu dul ki ñu fekk suñuy bagage ci moom saa yu ñu jëlee keneen koo xam ne fekk ñu suñuy bagage ci moom kon inna izan la zalimun kon ñun tooñkat la ñuy doon parce que tooñ nañ kooku fekk ñu suñuy bagage ci moom ba pare ñu jàpp ko pourtant munoon na koo def de lan moo tax munoon na koo def ndax ñoom ñoom ñoo ko sàkku ñoo ko proposé ñoo ko ne xus jëlal ahadana makaana jëlal kenn place am kon munoon na ne ku ngand kii ku ngand kii na ñëw wala diw mii na ñëw wala kii na ñëw parce que ñoom ñoo ko wax waaye mu ne leen maazallah déedéet ñoo ngi làqatu ci yàlla ñoo ngi muslu ci yàlla pourquoi ñu dem di jël keneen te moom mi moo sàcc moom mi sàcc moom la ñuy jël loolu laa doon wax sànq fii kenn dee def dega ñu ñëw seen kër fekk ñu ko fa ñu jël ndeyam ak baayam yóbbu loolu tooñ la loolu amul benn loi bu ko justifié kii yoonam nekk ci ñu doon ko jàpp lu dul jaay doole ak wane ne yéen a fi nekk lu leen neex ngeen def kenn mënul leen dara loolu kese la ñu amul leneen loolu nag tooñ dëgg la dalil baa ngi nii bañ ko waxee yusuf lan la wax inna izan la zalimun kon ñun de dañuy tooñ tooñ bu metti mooy jël keneen ci place waa ji te tooñ baaxul la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu tatika uqbaahu binnadami tanaamu aynaka walmazlumi muntabihun yaddu alayka wa aynullahi lan tanami bul tooñ de la tas li mën na bul tooñ loo am doole am doole bul tooñ ndax tooñ résultat bi fu muy mujj baaxul yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti ñaan yàlla du ko delloo ñetti ñaan yàlla du ko delloo ñaanu way jur yàlla du ko delloo ndey ak baay bu ñu ñaanee rek bal bu tàkk la yàlla du ko delloo ku woor bay toog yàlla du delloo ñaanam ak ku ñu tooñ yow da ngay tooñ dem tëdd di nelaw waa ji nga tooñ lal si jaadaam su jóot ci kanamu yàlla di ko ñaan ñaan boobu yàlla du ko delloo benn xale bu jigéen ci jamono yi muuraay muuraay muuraay bi muy metti benn xale bu jigéen mu ngi doon jàngee banque islamique boobu banque islamique mu ngi woon lycée Limamoulaye banque islamique bi ngeen di dégg lycée Limamoulaye la njëkk a nekk xale bu jigéen bi fa la doon jàngee comme day muuru am benn frère am bu koy jàpp di ko dóor te ay buukul la ko doon dóor buukul buukulu seen di xale bu jigéen bi mës naa simmiiku wan ñi ginnaawam ñun ñëpp dañoo daw parce que dafa xeesoon pël Fuuta la Khadija Diallo la tuddoon boobu muuraay boobu muuraay ak muuraay léegi du benn de léegi sax muuruñ dañuy sànni kol boobu muuraay dëgg moo am boobu ko koo gis mu muuru imaan ak yaqiin moo ko muur léegi nag muuraay modd la muuraay modd waaw da ngay kase couleur bi da ngay kase couleur bi kaala geeg dàll yi ak saag bi xale bi jigéen bi di muuru ndeysaan benn frère am di ko dóor guddi ak bëccëg di ko dóor guddi ak bëccëg saa yi ko gisee mu muuru daf koy dóor te su ko dóoree fa mu blessé ko xale bu jigéen bi dem jàpp daal di koy jullil ñaari ràkk waa ji dundam dafa yàpp dem na ba jubawaat ak moom xale bu jigéen bi di julliwaat pour yàlla dindi affaire bi mais mukk lii fi daa continuer moo tax tooñ baaxul loo am doole am doole bul tooñ waaw yàlla nee na maa leen ëpp doole te tooñu ma leen wala inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu sa doom sax boo ko tooñee mu këpp sa kaw benn xale bu jigéen université la doon jàngee mais mu bëgg sëy papaam ne ko fekk amoo doctorat doo sëy li ma wax da nga koy def xale bu jigéen bi muñ a muñ muñ muñ muñ muñ ba sonn instant bu nekk mu ñëw ci papa ji papa gis naa ku ma bëgg may ma ko papa ji ne ko déggu li ma la wax fii boo fi indiwul doctorat du ma la may jëkkër affaire bi jàpp ko mu feebar ñóbbu ko hôpital docteur yi xool ba sonn gisuñu lan la mais dafa feebar mënutul sax taxaw jeex tàkk wokkom mais bu ñu defee analyse def texte xool gisuñu dara dinañu feebar bi feebar kéem feebar bi ñu hôpitalisé ko di ko sol ndox ak di ko may deret mu jékki-jékki benn ngoon rek mu ne papa ji dama la soxla fekk papa ji seet si ko papa ji ñëw ba jege mu ne ko indi sa nopp fu mu ko mënatul wax ci kaw mu ne papa ji maa ngi ñaan yàlla ni nga ma xañee bànneexu àdduna yàlla na la yàlla xañee noonu aljanna ëllëg après mu décédé dafa wax ji rek daal di génn àdduna papa ji am problème moo tax tooñ baaxul nit du tooñ kon loolu mooy sunu dars tey ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu